tey ci altine gi yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars étudiant ya jiite plateforme bi di faculté des lettres et sciences humaines debout amal nañ ab point de presse ngir fësal seenum ñàkk ànd ci reprise graduelle ba autorité faculté ba tëral. gis nañ ne faculté des lettres et sciences humaines euh, motif bi ñu bi autorité di avancé mooy que ni benn nombre bi dafa bëri c'est trop normal que nombre bi bëri parce que mooy faculté bi gën a rëy ci université bi. li beneen thèse bi nga xamante ni moom la autorité avancé mooy que période Covid lañ nekk te jàpp naa ne suñu suñu président de la république moom ci boppam moom moo levé état d'urgence sanitaire ce qui veut dire que activité yëpp mën nañ reprendre tey mënuñ nangu ñu mën a autoriser jeunes yi ñu dem ci terrain de sport yi munuñ nangu artistes yi mun a commencé tëgg seen i concert munuñ nangu nga dugg ci bus sataay mu am ay xat-xatloo ñu ne ñun étudiants yi université reprise globale du fi am parce que euh, ndaje beeg buuxante beeg xat-xatloo bi la ñu bañ loolu suñ ko bañoon ñoom suñ ko bañoon ñoom duñ ubbi université ndaxte ku wax université wax point de rassemblement ku wax université wax point de rassemblement nekkul ay étudiants rek ñooy ñëw université ay étudiants dañ fiy ñëw ay professeurs nit yoo xamante ni dañ fiy liggéey également dañ fiy ñëw jàpp naa ne ñun ay intellectuels lañ ay futurs am nañ capacité wu respecter mesures barrières yi distanciation sociale distanciation sociale moom bu ñu ko xalaat ndaxte mun fi nekk mun fi nekk nañ ko waxte de suñ ko bañoon dina buñ ko bañoon ñoom dinañ tabax yeneen amphi yoo xamante ni dina dina permettre ñu désengorger amphithéâtre yi mais déjà gis nga ko amphithéâtre dafa manqué donc loolu aussi ñoo ngi leen ci interpellé ñu gën ci taxaw ngir mën a mettre étudiants yi dans de très bonnes conditions ñu mën a jàng pour réussir. étudiants ya nag ña ngay xamle ni duñ mës a nangu benn yoon boobu la reprise graduelle bu ko jaree sax ñu boycotté examen yi teg si paralyser système bi. point de presse bi nañu naruñ ci yem rek suñ ci jógee am nañ yeneen euh, stratégie yoo xam am nañ ko pare nañ pour paralyser système bi. pare nañ pour paralyser système bi dinañ aussi négocier ak autorités yi pour xool ban décision la ñuy jël maanaam pour trouver solution ci situation bi mais buñ ko deful pare nañ pour boycotter les cours examen pare nañ pour boycotter ko cours euh, restriction pédagogique yi nga xamante tam ñoo ngi koy def pare nañ pour boycotter ko boycotter ñun li ñu bëgg mooy jàng li ñu bëgg mooy aussi autorité mettre ñu dans de très ñu mën a jàng parce que fi may wax ak yéen fi may wax ak yéen tey jii nii nii ñi ci bëri ci ñun feeñu leen seen bourse nag ku ñu fayal sa bourse nan ngay def ba mun a jënd connexion pour mun a connecté wu normalement ñi ci gën a bëri ci ñun amuñ ay machine amuñ ordinateur portable ñi ci gën a bëri ci ñun également yoruñ ay téléphone Android yoo xam da leen di permettre ñu mën a si suivre ay cours en ligne te ñeneen ñi ci gën a bëri ci ñun tey ji dañoo dëkk ci gox goxaan yi gën a sori ci Sénégal dèjà Kër Massar boo fa demee pour nga réseau problème la waxuma la nga Tamba ay Kolda ay Casamance Sine Saloum étudiants yi fa dëkk problème yi ñi nga xamante ne dañ koy rencontrer pour am connexion yooyu yëpp ay facteur la yoo xamante ne dañ ciy tenir en compte autorité nag duñ nangu ñoom vu que seen i doom nekkuñ fi doomu baadoolo yi doomu euh, béykat yi doomu nappkat yi ñoom ñoo nekk université ñu nar ñu sacrifier ah loolu nag dañ koy bañ te pare nañ pour dem jusqu'au bout alors comme ni nga ko gisee euh, am na suñ délégation ñu envoyé woon ñu dem rencontrer la doyen mais moom il reste inerte devant cette revendication là rek euh, médiateur moo ngi nii duñu woo buñ demee rencontrer ko dinañ toog ak moom déglu ko mu wax ñu moom lu mu mën suñ fa pare aussi ñun dinañ ko wax lan la lan nga lan nga xamante ñun lañ bëgg ak aussi lan nga xamante ne lañ koy proposer ngir reprise globale mun a am te ñoom liñ ciy sóoraale du mun a am du am incha allah bu soobee yàlla. ndongo ya fare ca faculté des lettres et sciences humaines ña ngay ñaax seen njiit yi ñu déglu leen ngir ñu mën a taxawal ay solution yuy tax seen njàngum ren gi bañ a sooxe.